balaa maa ñëw ci amnistie bi rek je vais revenir un peu sur les dialogues une minute deux minutes. non wala dama def deux minutes de. sama temps ba am jël sama temps rek. waxal je je reviens sur le dialogue pour wane man sama sama posture leader. Hmm. entre deux mille dix neuf ak deux mille vingt quat bi ñaari dialogue dafi président Macky Sall woote. dialogue bi ci njëkk mooy après les élections présidentielles de deux mille dix neuf. ci la hmm. woote. candidat yi nga xam ni ñoom ñoo bañoon ni que Macky Sall moo gagné woon ñu ne woon ni que ñoom duñu dem ci dialogue bi ndax dialogue après les élections amul benn sens muy benn te dialogue boobu moo ngi fekk suñu président nekk ci biir kaso bi teewul yónnee na dem ci dialogue bi on se rappelle tous période boobu ci la Omar demee ci dialogue bi waa PDS ko yow yóbbu ñu la la yónni mooy premier dialogue bi fa am deuxième dialogue bi mooy dialogue bii ñu jógee après les élections mhm. boobu ci la sama demee ci dialogue bi am posture bi mu amoon Sénégal yépp seedal ko mu dem taxaw biir salle des banquets jàkkaarloo ak président wax ko ay bëgg-bëggam ne ko carrément amoo amoo daa def troisième mandat ak et cetera et cetera. Mhm. c'est-à-dire ñaari dialogue yooyu moo fi am te dialogue yooyu yëpp dem nañ ci assumer nañ suñu position. lii xew tey du dialogue li xew tey président Macky Sall moo nekk ci benn guuta bëgg a génn ci guuta gi xamul naka lay def ba génn ci guuta bi mu am ñu mu ciy waxtaanal te moom carrément mu taxaw wax ñooñu ne leen li ñu fi waxtaanee yëpp du am benn suite ndaxte après damay dem saisir conseil constitutionnel et après conseil constitutionnel mooy décider donc en à ce que je disais tout à l'heure pour la date des élections c'est au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités et de nous donner une date conseil constitutionnel li mu waroon def sax man ci sama yaakaar mooy dafa waroon ubbiwaat waxtaan ak les dix neuf candidats. conseil conseil constitutionnel na ko def parce que. Ah, ah. conseil constitutionnel dans ses. le président les a appelés waaw xaaral président la ñu war a waxal déglu ma s'il te plaît ma la dagg. président la ñu a wax ba léegi yaa may dagg. non Moussa man du que man ak yow yëpp ay ndaw lañ. voilà war a déglu parce que. ëllëg ñu ñoo war a yor réew président la ñu a waxal. c'est pas au conseil constitutionnel Moussa Moussa xaaral déglu ma conseil constitutionnel la ci réponse am yi mu joxe. Mhm. dans ces considérants moom jox na boppam benn rôle mooy le rôle de régulateur. Mhm. et quand tu te dis rôle de régulateur les principaux concernés war nga leen mën a woo waxtaan ak ñoom. war nga mën a woo administration bi organiser élection yi nga toog waxtaan ak ñoom. et tey conseil bu defoon loolu dinañu wutal date avant la date du 2 président Macky Sall pour vous dire que que ci ay tappaleem la nekk. bi ko conseil constitutionnel waxee ni que carrément date bi sa loi bi ak sa décret bi rek bi nga bi nga jël dëppoowul ak yoon président amoon na latitude. parce que toujours dafa am benn fourchette 45 jours 30 jours au minimum mais président mënoon na jël datu élection bi ñu ko tontuwee ci saa si bu fekkoon président dafa bëggoon rester dans cette fourchette là mënoon naa tànn la date du 3 mars ba léegi on dans les dates mm-hmm. donc président dafa ñu wan carrément que ni moom li mu bëgg mooy bëggul ñu dem élection président xam na ni que candidat mbërëm jekkuwul am na ci ay complice